ñu waxoon heure bi heure bi xaw a am retard ñu ngi leen koy jéglu bu baax di leen sant itam ci seen présence ci seen teewaay fii ci fondation Cheikh Ahmad Bamba of North America li waral ndaje bi nag Sëriñ Fàllu junj na ko mooy leeral la wala gën a jokkale suñu diggante ak yéen loolu mooy ci li ci jëkk mooy ku ne xam na ne lépp lu waay di yëngu ci àdduna bi surtout lu jëm ci lu baax dafay baax nit ñi di ko xam surtout li nga xam ne mooy njàngaleem Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ñu nekk nag ci Amérique ak Canada muy fondation Cheikh Ahmad Bamba of North America euh, juddu atum ci teewaayu Serigne Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada ngir yaatal ak yàkkli wala feeñal liggéey bi nga xam ne Serigne Touba liggéey na ko. te mu waxoon ne inni uxaatibu nasara turan fi ardihim joojee nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mourtada doon wane loola Serigne Mamor gis ne ngir mu mën a dund sax dañuy fab yitte jëpp jëmale ko ci taxawutu tànk yi loolu nag nan lañ ko mën a amee muy ay réalisation yoo xam ne dañ ko war a def fondation bi taxaw ci loola loola nag tey ñu bëgg ko présenté waaye ci biir présentation bi liñ ci gën a yitteel mooy dafa am ay liggéey yu bari yu fondation Cheikh Bamba def te yéen waa press bi war koo xam war ko koo jottuli ci ñi nga xam ne dégguñu ko ndax ñi ko dégg ñi ko xamee bëgg nañ koo def bëgg a def lu mel noonu mañ koo def ñi neen ñi nga xamante ni biitim dégg nañ ko man ci jariñu li neen li ci des mooy liggéey yi ñu def ci Amérique te di ci soxla ay presse yu bari am ci ñoo xam ne dañu leen defal ay invitation ñuy ñëw ci lu mel ne convention bi ak yéen yu mel noonu ñu war a jaxasoo ak presse yi nga xamante ni bii ñu ngi fi ngir liggéey yi nga xam ne mooy am ci bitim réew ci jaspora bi adduna bépp di ko xam njàngaleem Serigne Touba di tas ci adduna bi. kon lii mooy première fois ñu def point de presse mel ni daanañ ko def après jéble bi mais ci buntu kër xalifa bi rek lañ ko daan defee tey nag ñu taamu daje pour leeral li nga xam ne mooy jubluwaayu fondation bi li ñu wax mission ak vision li nga xamante ni moom lay doxee Serigne Mouhamadou Keita Thiam dana ci ñëw. comme man ci ubbi bi damay ubbi rek ngir leeral leen li war a jotaay bi sant leen yéen waa presse bi rafetlu seen teewaay xam ne bëgg nañ bu liy jàllee ñu continuer am ay relation yu gën a jege ba li nga xam ne mooy diine ji ngeen di ko gën di xa jàllale surtout lu jëm ci wàllu diaspora bi doon ko yéen koy def ci biir réew mi mais luy jóge ci diaspora bi di ñëw ci ñi nga xamante ni bii mooy euh, réew mi ak réew yi nga xamante ni ñoom la ko seqal yépp muy ay liggéey yu baree bari yoo xam ne ñu ngi koy def. di ko def nag ci turu yoonu murit wépp muy liggéey yu rëy yoo xam ne adduna bi war nañ koo xam waaye du ci àgg ne xam gi mais jariñu gi nga xamante ni bii nit ñi mën nañ koo jariñoo bu ñu ko déggee looloo tim euh, bokk na ci li nga xam ne moo waral jotaay bi kon ñu ngi leen di santaat encore ci seen teewaay di leen gërëm di rafetlu jotaay bi di leen bàyyee ki nga xam ne mooy porte parole bi mu ñëw ci li nga xamante ni bii mooy euh, li waral jotaay bi tey jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah Euh, yéen waa presse bi noo ngi jiital suñu nuyoo ci yéen ndax lii point de presse la kon nuyoo bi primeur bi yéen a ko am di sof suñuy kàddu ci kàddu jëwriñ Fallou Samb waaye it ci kàddu sëriñ Fallou Thiam bi nga xam ni moom moo jokkoo ak yéen bu ñu organiser lii ni ko jëwrin waxee fondation Cheikh Ahmad Bamba bu North America ñu ngi ko mettre sur pied en 2015 kon boo ko xoolee ci tey am nañu sept ans boo xoolee nag distance physique bi muy diggante fii ak amerique nga xool aussi nii foofa lañ ko tege waaye fii mooy date bi ndax ki ñuy véhiculer am njàngaleem di véhiculer projet de société bi nga xam ne teg na ko kooku fii la ne mooy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul kon bu fekkente ni fondation bi sillage boobu du ko mën a génn mooy activité bu mu mën a def moo xam ne pour pour ay membre am la wala pour daayira yi wala ci suñu jokkoo ak réew ma ñu ne dañuy xam ni lépp mi ngi déparé ci ki nga xam ne mooy xaadimu rasul kon daañu respecté enseignement am daañu nekk aussi ci sillage bi nga xam ne moom la tracé fondation bi nag mi ngi juddu ci initiative bu sëñ Maam Mor Mbacke ni ko jëwriñ waxe parce que gis na ni réew ma ñu ne foofa kenn du fa jàngal kenn booloo ndax cinquante deux états la ñenn ñin cinquante waaye la leen boole mooy benn langue mooy aussi benn monnaie kon. réew moomu ku fa ne di fa dund danga xam lan mooy njëriñal ànd parce que ñoom ñooy première puissance mondiale te ànd leen ko may kon loolu bokk na ci li inspiré sëñ Maam Moor ba mu xam ni war nañoo mën a ànd état bu ne nag wala yu ëpp ci état yi fu ci ne am na daayira nit ñi aussi am nañu ay xalaat xalaat yëpp mun na doon benn waaye waxtaan mën na am bokk benn objectif mën na am bokk ku ñuy liggéeyal mën na am ba loolu war a mën a favoriser suñu unité kon ñu xam ni 2015 la fondation bi taxaw waaye bëgg mbooloo yi ànd loolu de tout le temps dafa mas a nekk préoccupation sëñ Mamor parce que ni ñu ko waxee léegi rek ci xalifa bi ku ne dégg na ci waxi sëriñ Murtada waxtasimo bi abdillahi jami an wala tafaraqu kon ànd leen te bu leen tàggoo loolu lislaam la réew ma ñu nekkit wone ko donte ñoom sax ñu ci bari gëmuñu sunu boroom walla gëmuñu yonent bi waaye ñun nag ñu dem fa daje fa doon une communauté kenn ku ci ne yóbbaale la nga xam ni moom mooy réalité am par rapport à sa culture par rapport a son milieu ak yooyu yëpp waaye nag ba ñu fa dajee ñu xam ni kenn képp la ñu bëgg moom la ñu liggéeyal moom la yaakaar te kooko it dafa bëgg ñu ànd booloo kon 2015 la fondation bi juddu ca Detroit 20 daayira ñoo ko composé woon 2015 ba 2022. ñoo ngi ci 43 daayira kon xam nañ ni yokkute am na yokkute googu aussi nag buñ ko interroger dañuy gis ni am na ñoo xam ni ci position attentiste lañ newoon am ñoo xam ni dañ doon xool ba xam ñii fan la ñu jëm am ñoo xam ni dañ doon xool ba xam ndax yi fi daan am rek moo fi am maanaam ànd ba mu yàgg rek affaire ba mel ni feu de paille waaye yàlla dogal na ni bi nu ko tegee ci ndigal parce que mooy sunu charge bu njëkk waaye teg ko aussi ci boroomi xam-xam yoo xam ne dañu daje am benn objectif waaye teg ko aussi ci Pastef boo xam ni am nañ ko ci sëriñ bi te war ko matérialiser ci li nga xam ni mooy li sëriñ bi bëgg ndax comme ànd la sëriñ bi bëgg nu def ko il fallait ñu boole suñuy effort énergie yi ñu mën a déployer moyens yi mën a déployer lu ne stratégie gi yëpp ba mën a ànd waaye nag ànd boo xam ne dafa tegu ci dëgg waaye it tegu ci lu leer naññ loo xam ne dañuy xam ne nii lañuy ñuy ànde kon li wute fondation bi ak yeneen organisation yoo xam ne ñun ñi ñëpp kenn ku ci ne jéem nga ko jéem nañoo daje ci lenn lu mën a doon yooya succès bii fondation bi am benn ci ñoom amu ko kon foofu aussi dañuy gis ni am na benn level boo xam ni fondation bi àgg na ci waaye loola it bu ñu duggoon fi mu ne nii ci wax leen ni fondation bi liggéey rawatina ci wàllu commission yi ak yooyu yëpp ak ni nga xam ni mbedd Amérique la fa ëpp solo mooy temps ak sa alal alors que ñaar yooyu la waa fondation bi jaayante moom di ko jox Serigne Touba parce que mercredi bu ne dañuy def conférence call au moins da nga am une heure wala deux heures de temps boo xam ni bureau bi exécutif bi ñoo koy daje. ci conférence ko tous les mercredis daayira ya bu ñu ñëwee ci seen ci li nga xam ne mooy seen mooy seen mooy seen mooy seen euh, seen mbooloo ah yooyu aussi presque deux semaines yu ne benn vendredi ñu daje léegi nag di remonté waat yëf yi di ko indiwaat ci bureau exécutif bi di ko delloowaat ci daayira yi parce que lépp mi ngi dox ci kaw waxtaan ak ci kaw consensus tout en gardant fermement ligne bi nga xam ni mooy ligne bu Serigne Touba kon lii li tax ñu toog ba tey nag ñuy doog a def cette conférence de presse mooy dañoo dem ba xam ni am nañu benn vitesse de croisière boo xam ne atteindre nañ ko fi mu ne nag war nañoo mën a jàkkaarloog àdduna wax leen li ñu liggéey wax leen aussi fi ñu jëm ak yan objectif la ñu am ak yan ambition la ñu am ndax ki ñu nekkal mu di ñu inspirer. ñuy jàng ci moom di ko gëm muy Serigne Touba yitte ju kawe rek lañ ko xamee yitte jooju it moom la sëñ motolaa di traduire ci jëf ju muy def ba ci université bi ba ci lu mën a doon. Euh, leen di ziare bu baax a baax di jiite si ziar bi euh, sëñ Fallou Samb ak jëwriñ yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi yëpp euh, di ñëw rek xam naa di mottali li nga xam ne moom la ñu ma jut wax yéen du yàgg waaye baax na ñu ko tuuti tuuti. ñun ñoo nekk euh, fii FONCAB Sénégal euh, comme ni ngeen ko xamee euh, FONCAB bi ñu ko créé en 2015 mu am ay réalisation yu am solo yoo xam ne bi ñu ko tàmbalee si lañ ko commencé liggéey ñu dem ba nga xam ne comme Sénégal li ñuy def lépp daanaka fii lay tàmbalee def naa jëwrin sëñ Mamadou Thiam wax na ko Serigne tubaa fii la nekk tubaa fi la nekk te action yu bëri bëri yu ngi def foofu fii la jëm waaye tamit am na yoo xam ne tamit fii lay jugee euh, dem foofu ci loolu lañ toog xalaat ne euh, Sénégal doon na baax euh, ñu am benn démembrement bu FONCAB États-Unis waaye fii Sénégal mënoo xëy rek daal di am fondation da ngay tàmbali si association loolu moo tax ñu créé association Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk benn démembrement bu fondation Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk États-Unis mu ne fii Sénégal association boo xam ne ni fondation Cheikh Ahmadou Bamba États-Unis Euh, nekkee entité bu gouvernement américain reconnaître association Cheikh Ahmadou Bamba Sénégal tamit gouvernement Sénégal daf ko reconnaître moom bi si bisee ministère de l' intérieur ba noppi am euh, statut association ak lépp loo xam ne euh, organisation bu légal daf koy am beneen bi tamit mooy bu ngeen seetee xam nga sànq kii tudd na fi addiye boo xam ne dafay jóge dafa daan jógee Amérique di ñëw Sénégal boo xam ne Euh, ni ñu ko daan defee comme daayira yu bëri ni ñu koy defee mooy euh, cash bi ngi dem ba nga xam ne organisation dina egg foo xam ne lépp lu muy def rek dafa am parce que ñaan nañu yàlla euh, dem ba nga xam ne ñu ngi fi indee soixante di million dem ba def indi ay ay ay milliards te su boobaa dafa war jaar ci circuit yoo xam ne képp koo xam ne dafa soxla bis bu def audit bu demee dina ko mën a gis gis traçabilité gis yoon yi muy jaar ak fi muy dem yëpp te lu am lépp day mucc ayib. ci loolu la ñu créé euh, compte bancaire boo xam ne association moo ko moo ko am ñu ñu ñu ñu mu lëkkaloo ak compte bancaire yi nga xam ne moom lañ am fële Amérique nga xam ne addiya bu ñëwatee suñ ko collecté Amérique euh, si circuit boobu lay jaar daal di ñëw euh, Sénégal xam ne képp koo xam ne joxe nga sa addiya di nga xam ne li nga joxe yëpp am na fu mu jaar di egsi fi mu fu war a egsi tey mooy firnde bi nga xam ne fi ñu jóge ba fi ñu egsi tey beneen bi tamit mooy si wàllu activité fii Sénégal comme ñu ñëwee bras armé FONCAB euh, États-Unis fii fii Sénégal sànq euh, sëñ Mamadou dëgg tudd na ko euh, activité bi njëkk a def fii mooy conteneur yoo xam ne dafa jógee Amérique def matériel médicaux def lépp lu jëm ci ay soins médicaux matériels médicaux noo ko xalaatee rek noonu la amee ci wàllu santé indil ko Matlaboul hôpital Matlaboul Fawzeyni ba noppi tamit indi ko Darou Moussi am na tamit yeneen action yoo xam ne def nañ ko si biir Euh, yoo xam ne tudd nañ ko mooy yu jëm ci soxna yi léegi beneen bi tamit mooy ci wàllu euh, kër Sëñ Tuubaa bi nga xam ne moom la leeral xam nga euh, foofu li ñu ay ay ay centre d'éducation communautaire la yoo xam ne dafay contribuer comme nekk tubaab di waxee rayonnement islam sunna ak enseignement Serigne Touba waaye xam ne enseignement Serigne Touba Touba la tàmbale balaa balaa balaa ko ba nga xam ne léegi ni nga xam ne noonu lañ ko defee fii Touba noonu lañ jàpp noonu lañ ko defee fële fële Amérique waaye dañ koy adapté ndax ña nga xam ne ñoom lañ koy defal ay nit la yoo xam ne foofu lañu dëkk yàgg fa ba noppi juddo foofu objectif bi mooy dañuy am ay ay citoyens yoo xam ne dañuy nekk Amérique juddoo fa màggee fa lépp loo xam ne euh, Amérique ku fa juddoo màggee fa war na ko am si lijaasa ak ci xam-xam ak yëpp boole si am yar euh, ak ak li ñuy wax xam-xam ak tarbiya xam ne ku ko xool euh, bu dee wàllu àdduna kenn du ko ci raw bu dee wàllu kii tamit kenn du ko ci raw Euh, ci beneen bi tamit mooy ci wàllu perspective yi gis nañ ni soxna yi tamit ay ay ay ay ay jàmbaar lañu euh, lim na sànq réalisation yi nga xam ne moom def waaye am nañ yeneen xalaat yoo xam ne am nañ ko yoo xam ne xam naa dañ ko mos euh, yu mel ni amaatee xale yi tamit ñëpp xam nañ ni ñooy ñooy àdduna bi léegi nag ñu ngi leen di waajal benn wàccaay boo xam ne bu liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk jëriñ ñi boo liggéey fii cinquante ans cent ans lépp loo xam ne ñi ñu ko def ñoom dinañ ko ba noppi ba pare ba pare yaatal donc xam naa si loolu laay euh, daañalee rek euh, di nuyu ñëpp di sant ñëpp xamal leen ni fonkab Sénégal moom fonkab Amérique la fi nekkal te lépp loo xam suñ ko defee ñu am ndam rek danañ ko def ci yaatal ak ci liggéey ak ci indi ay résultat jërëjëf wasalaam bismillahi rahmani rahim um, today is uh, Sunday, the Tuba, just coming back from the General Halif in uh, St. Muntaha But before we get started, I would like to take the time out to uh, wish uh, long life to our Halif Sen Muntahambake. May grant him long life. To our um, Amdi, Sen Amdi um, Mendefal, Modu which is the Halif General of Old Bifal. May Allah grant him long life as well. Um, to get started today, we want to talk about the FONCAP, which is the foundation of Shah Ahmad in North America. Uh, and we'll go ahead and uh, do a quick introduction and then we'll talk about the vision and the mission before we talk about the achievement. And finally, we'll uh, conclude by telling you guys what where we're heading. Shah Ahmad Bamba Foundation is a nonprofit organization that uh, federate 42 diarrhea in North America, meaning in Canada and in the United States. It was created in August 19, 20, 2015 in the US and under the effective presidency of Serine Mamor uh, and its role is to bring together all the Murids Taliban in North America in order to facilitate and improve their life uh, conditions and promote teaching of Sheikh Ahmadu Bamba throughout the world. The vision and the mission of FONCAP, the foundation of Sheikh Ahmadu Bamba, is to bring together all the Murids all around the diaspora especially in North America and throughout the diaries for better social care, but also and above all for an improvement in living conditions. and social integration while preserving and by promoting Murid culture according to the teaching of Sheikh Ahmadu Bamba. Its mission is divided into three major acts which are the acquisition of the Kurserin Tuba, um, that's for one. For two, the popularization of the teaching of Sheikh Ahmadu Bamba through its work, meaning the Hasidas and the recommendations. And third, the promotion of social Um, mutual, aid between human beings in general and between um, Muslim brothers in particular. Now, we have to understand that since its creation in uh, 2015, Sheikh Ahmad Bamba uh, Foundation in North America did uh, quite a bit of achievement, but today we're just going to enumerate a uh, few of them. since its creation, the foundation has been able to create the Adiyatul Rahma. Adiyatul Rahma, like um, most of you already know, is like an uh, organization where people, when they deceased, can be brought back uh, to Senegal. So they have a symbolic contribution that they do, and then uh, at the end, all that money collected will help expedite the bringing of the um, uh, deceased uh, person to, to, to the mainland. So that's for one. Secondly, we have to know the translations of uh, into English. So there are about three Hasidas that was translated to uh, English, and uh, that I'm talking about. I'm referring to um, Nafiz, Nahju, Tazawud Shihad, and these three Hasidas was uh, translated from Arabic to English. And I will just uh, emphasize that it's extremely important that we translate those Hasidics into English because um, it will be some newcomers that don't speak speak French, that don't speak Wolof, and that don't speak Arabic. by doing this hard work, it will allow them to understand the writing of Serin that's uh, one important thing that uh, the, foundation already has achieved. Uh, we also did the edition of a book of recommendation instructed by Sirin Muntaha Once we um, get that book uh, edited, we'll just make it in the disposition of each and every single one of you. We also achieved the donation of medical equipment in Tuba and in Darumorti, assistance to diarists, support for Senegalese national that was in the U.S. during the COVID. Because as you already know, during that period, most people didn't go to work. So the income wasn't there. So uh, the foundation, Shah Ahmadou Bamba, deployed some um, uh, money so those people can at least survive. So that's one thing that they got done during the COVID-19. Establishing of the Sutura Committee, Sutura Committee simply because we do have some emergency sometime and uh, we call it suture because we don't want uh, the public to know exactly, you know, some people, they won't come to you to ask for help. And because you see that they need help, you go ahead and in sutura, which is a Senegalese uh, wall of uh, word, go ahead and help them uh, take care of those uh, urgencies. Um, we do have some assistance to the poor during the Ramadan and construction of toilets. Uh, we'll talk about the bathroom that the ladies in the uh, foundation did uh, build throughout Tuba and uh, its new cities surrounding Tuba, and the facilitation of acquisition of eight cursor Tuba. There also, I will talk about um, since its creation, Uh, the foundation been helping out other dairies to acquire their uh, tuba, and I think that was a huge accomplishment for the uh, foundation. Now, uh, finally, we'll talk about the uh, prospects, and here we do know that FunCap does not intend to stop um, on this good path Our ambition in this short and medium term are social assistance for immigrant in difficulties, uh, deployment of the Quranic teaching program in the Kurserin Tuba. So we'll be able to teach uh, the Quran in each and every single one of the Kurserin Tuba. Uh, the youth leadership program. We do have the Ndawuserin Tuba throughout United States and Canada, and we'll be uh, getting involved on just kind of helping them strengthen their um, and their leaderships. Development of summer camp program in collaboration with UCAP, which is the University of Sheikh Ahmadu Bamba, uh, that's our part of our plans. And strengthening of activities and program intention by women, intended by women. So basically, um, the FONCAP, the Foundation Cheikh Ahmadou Bamba, who have been here only seven years, been just doing great job and will continue to uh, keep on keeping on. So uh, we'll welcome each and every single diary that are in the US or in Canada to join the FunCap and for more information and to uh, touch base with us so we can uh, show them and teach them how to uh, contribute and make this work greater. Thank you so much and I highly appreciate your attention. Bonsoir, chers membres de la presse. Euh, pour essayer d'emboîter le poids, euh, euh, euh, euh d'emboîter le pas à mes collègues, à mes collègues qui m'ont euh, précédé tout à l'heure pour essayer de résumer ce qu'il vient de dire en français. Mon intervention sera succincte et sera axée sur quatre points essentiels. Le premier point, c'est à l'image de mon frère Khadim Sam, je vais essayer de euh, parler un peu de l'historique de la fondation et, en, en introduction, et, et, et, ce sera très court. Après cette première partie, je, je vais m'atteler à parler de la vision et la mission de la fondation. En troisième partie, comme mes collègues l'ont fait en Wolof, aussi bien en, en anglais, je vais essayer de pointer du doigt et les réalisations de la Fondation depuis sa création. Enfin, euh, euh, euh, la dernière partie sera axée essentiellement sur les perspectives et les ambitions de la Fondation. Pour commencer, en ce qui concerne l'historique, la Fondation Cheikh Ahmed est une organisation, comme vous le savez, à but non lucratif. euh, qui, a, en ce moment, regroupe 43 États, 43 d'ailleurs, euh, je dirais, éparpillés un peu partout aux États-Unis en Amérique du Nord. La fondation la présidence effective de Serigne Mamour euh, pour rôle essentiel de rassembler l'ensemble des talibés mourites d'Amérique du Nord afin de faciliter et d'améliorer leurs conditions de vie et de promouvoir les enseignements de Cheikh Ahmed Bamba à travers le monde. Sa vision, euh, euh, comme je viens de le dire en introduction, c'est de fédérer l'ensemble des talibés mourites d'Amérique du Nord à travers les daïrés. pour une meilleure prise en charge sociale, mais aussi et surtout pour une amélioration des conditions de vie et d'insertion sociale, tout en préservant et en promouvant la culture mouride selon les enseignements de Cheikh Al-Khadi. Sa vision se résume ainsi euh, sous trois majeurs aspects que sont l'acquisition des cœurs, des, des cœurs communément appelé Kër Serigne Touba. La vulgarisation des enseignements de Cheikh Al-Khadim à travers les œuvres Khassideux et recommandations. Mais la promotion de l'entraide sociale entre êtres humains en général et frères musulmans en particulier. C'est ça, en gros, euh, le résumé de la vision et de la mission de la Fondation. Nous en venons maintenant aux réalisations de la fondation depuis sa création. Comme mes, mes prédécesseurs l'ont bien si mentionné, depuis sa création, euh, euh, la fondation a mis euh, sous pied Hadiyatul Rahma, dont j'ai l'honneur d'être le serviteur. Et Hadiyatul Rahma est un programme de la commission sociale de la fondation c'est un programme essentiellement destiné à une collecte de fonds pour mieux nous préparer à venir en assistance au cas de décès que nous connaissions, nous qui sommes, dans la diaspora. Donc, Hadiatul Rahman, au début, euh, le porte-parole vient d'en parler de façon plus longue. Hadith Rahman est au moment où nous parlons est, le, programme pilote de la commission sociale. En d'autres termes, c'est le programme qui donne un, un, nom particulier à la commission sociale de la fondation. Euh, Au début de la création de ce programme, il faut le rappeler, c'est un programme social inédit, qui est tout à fait différent de l'assurance vie et, qui connaît un, un succès euh, est très fort aux États-Unis. Donc au début, nous avions eu 1000 membres, moins de mille membres, et, et c'était en 2018. Au moment où nous parlons, nous sommes à la cinquième édition de ce programme et ce programme euh, a, a, a eu, au moment où je parle, 3000 adhérents. Donc, euh, vous pouvez remarquer que on, nous avons eu euh, un nombre assez important de, euh, de membres au début de la création de ce programme, de jusqu'au mois où nous parlons. Donc ça, ça fait partie des réalisations de la fondation. La deuxième réalisation, c'est la traduction des Khasaïd en anglais. Nous pouvons mentionner le Diaor Nafis, Nahju, Tasoudou Sikar, et etc. Il y a aussi l'édition de livres de recommandations instruits par Sri Muntahambake. Euh, aussi, mes collègues, mes condisciples l'ont mentionné, il y a des dons de médicaments, de, de matériels médicaux que nous avons acheminés ici, à Touba, à l'hôpital Madlaboul Shifaï et à Darumorti. La Fondation aussi, à travers la Commission des femmes, apporte une assistance particulière aux Dara. Euh, la, Fondation aussi a les, les ressources sénégalais impactés la COVID. Et, et là aussi, le porte-parole en a longuement parlé pendant les deux années qui sont passées. Comme vous le savez, le monde a été affecté par une crise euh, très sévère. Nous, euh, et cette crise n'a pas épargné les États-Unis. Donc, la Fondation a décidé, euh, à travers la Commission sociale, de venir en aide aux gens qui étaient impactés. Et nous avons distribué pendant cette période une somme qui était euh, un peu plus de Euh, treize millions treize millions de francs CFA. Euh, et Seigne Khadim vient de, de le dire, nous avons mis en pied un comité nommé Comité Soutura. Et, et c'est un comité qui euh, discute des problèmes euh, des ressortissants de la fond, euh, des ressources qui sont euh, aux États-Unis et au Canada et trouver des moyens de leur venir en aide. La fondation aussi vient en assistance aux personnes démunies durant le ramadan et, et, et à aider à construire des toilettes par les biais aussi surtout de la commission des femmes, comme je viens de le dire. Euh, depuis sa, création, depuis sa la, la, la, fondation a facilité l'acquisition de Kersun Touba euh, à travers les États-Unis et au Canada. En ce qui concerne les perspectives de la FONCAP, euh, la fondation ne compte pas s'arrêter en bon chemin. Elle a pour ambition à court et moyen terme de d'élargir le champ d'action de la commission sociale. La commission sociale euh, est connue principalement par le biais des Hadbit Mais nous comptons, euh, comme je viens de le dire, élargir son champ d'action et en faire euh, un programme d'entraide sociale. en venant en assistance aux immigrés qui sont en difficulté En d'autres points, euh, la Fondation va s'atteler à déployer des programmes d'enseignement coranique dans les Kersin Touba. La Fondation va aussi euh, essayer de renforcer le Youth Leadership Programme et développer des programmes de colonies de vacances en collaboration avec l'université Cheikh Hamoud Bamba. La Fondation aussi compte à renforcer les activités et programmes initiés par la Commission des femmes. Et, euh, et, là, je viens de, de, terminer avec euh, le résumé que je comptais faire en ce qui concerne les perspectives de la fondation. Je vous remercie. bi ñu jëkk jébbalee suñu addiyee daaw dañoo amoon ñaari séparation yu ñu def ci addiyee yi wax sëriñ bi ne ko bii mi ngi jëm ci université bi bii addiyee juñ la jox la mu ne lépp ci université bi laa koy def ñun koy defati nañ ko boole mu nekk benn liggéey bi ñu lépp rek foofu la jëm yoonu murit ni muy faral doxe mooy lépp lu xalifa bi song rek murit yëpp dañ koy ànd ak moom waaye ci niveau fondation Cheikh Ahmadou Bamba comme ni nga ko laaje suñ yéenee ak su yittee mooy lépp loo xam ne sëriñ bi bëgg na ko mu jëm ci dëkk bi fondation bi am ci taxawaay bu mat sëkk ci euh, ni ko sëriñ bi bëggee waaye ci kaw ñu jox ñu ndigal la ñu ñu doxal ko waaye du duñu baaxoo di laaj ndigal ci xalifa bi pour doxal dara waaye lépp loo xam ne xalifa du ko yëkkat teg ko ci loxo moo xam ci fondation bi la wala benn organisation bu mu doon ci yoonu murit nekk ci diaspora bi mhm. organisation bi dana ci taxaw taxawaay boo xamante ni bii àdduna bépp daañu teg bët kon ci tënk rek fondation bi pare na ngir liggéeyal Serigne Touba te itam ci lool la taxaw ndaka jekk mooy lii ñu def léegi jóge ci xalifa général de murit cent millions cinq cent mille jox ko ko ngir mu tàbbal ko ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi ku ne xam ne loolu du ca dara waaye yéene la ñu am wane ko bëgg ko ànd ak moom liggéeyub sëriñ Tuubaa waaw jërëjëf ci question boobu maa ngi jëkk rek ci état bi euh, consil général suñu xarit la Alhaji Ndaw moo nekk New York waaye ñun ci niveau daayira yi xam nga ku bokkul daayira mais ku bokk ci daayira kooku amul benn jafe-jafe booy am bañ soxla état ndimbal ci état képp koo xam ne adhéré wu ci benn daayira bu jafe-jafe masaan am ni ñuy def mooy daayira yi ñooy woote suñ mbàkki bi kenn ku nekk mu woo la daayira bu ne daje nga am pour ñu yóbbu koor boobu koo dégg rek ñu ne état da ca mooy dafa ber woon ci ruq kenn xamu ko ba yàlla dogal lay dikk-dikk ci moom mais bu dee bokkoon na ci benn daayira ak bu mu mën a doon ci 43 daayira bokk ci fondation bañ ci bokkagul booba jafe-jafe daw am ci suñu diggante ak état loolu la ñu daan def na nga xam ne moom lañu daan laaj état yi di ko dajale moo nu inspiré ñu xalaat ne waaw ñun dañuy continuer rek mel ne ku yalwaan te nekk ci réew mu mel ne Amérique lu tax mënuñu organiser wu créer benn programme boo xam ne dañ ciy dajale mbokki taalibe yi nga xam ne bëgg nañ cee bokk ba yaatal ko sax ba kuy jullit ak ku dul jullit ñëpp mën cee bokk waaye ku nekk Afrique ak ku nekk ci moo xam Guinée la wala Gambie wala fu mën di doon nga mën a bokk ci programme boobu ñu ne kon nañ ko yaatal ubbi ko ba loola taxaw na ba ni ko suñ Mbàkke waxee fi mu toll nii ñu ngi toll ci ay mille membre yoo xam ne li nga xanaa li ko manqué bëriwul yoo xam ne ñëpp adhéré wu nañ ci Adiyatou la ñu inspiré bañ def loolu nag mooy lii mu wax ci dabi bi mooy jafe-jafe yi daan am dañ daan dégg léeg-léeg nit am génn àdduna kenn xamu ko nit ñi am jafe-jafe ci nan la ñuy def ba mu dellu lu mel noonu nag le consul daan contacter état Sénégal pour ñu jàpp ci kooku mën a dellu mais bu dee moom bokk na ci benn organisation ci yoonu murit kooku moom état mos ci participer ci lu ñu xam. bëgg nañ am ay build ay relation suñu diggante ak yéen ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy defal Serigne Touba ci Amérique ak Canada. Euh, di ci jokkoo ak yéen waaye di jokkoo ak seen i kilifa. xool nan lañ gën a mën a def ba njàngaleem Serigne Touba gën a tasaaroo ci àdduna bi. ndax njariñal kese la. xale yi nga xam ne ñoo juddoo Amérique ak Canada te xam ne boo fa juddoo. am nga nationalité américain des na ci yow nga dem ba White House des na ci yow nga nekk président Amérique dem foofa nag yóbbaale fa lislaam wala yóbbaale fa diine wala yóbbaale fa ak taalibe la koy mën a am mooy ñu ñi nekk foofa nan la ñuy jàppalee xale yi mm-hmm. jàngal leen yar leen wan leen Sëriñ Tuubaa bu bu ëllëgee fu ñu man di dem bu boobaa ay murit la ñuy doon wa illaa ay jullit la ñuy doon wala sénégalais la doon wér xam ne seen réew la ñuy la ñuy servi mm-hmm. for everyone kooku ba nekk rek yaa yaa ngi ci biir yaa ngi ci bopp bu nekkee ci réew mu mel noonu nag dafay baax ñu organiser wu boole suñu bopp nekk benn takku jaxasoo ak yéen ñi nga xam ne yéen a mën a jàllale xibaar yi ci àdduna bi bañ xam lan lañu war a mën a dimbalee tu tànk yi ba li nga xamante ni bii mën nañ koo jariñ àdduna ëllëg nga xam ne kii du duñ léegi téeméer at ci kanam wala juróom fekk at ndax waxuñu suñuy waxi tey boo gisee Amérique raw réew yu bari bu ñuy def seeni débat ca White House bu ñuy wax bu mu jàng nga dégg ñuy xuloo ci bu ñu defee nangam feeg téeméeri at wala feeg juróom fukki at Amérique day am problème sàngam ca ña koy wax ñëpp kenn ku am na juróom benn fukki at ak juróom wala kenn du ca fekke ba problème boobu di am ñoom ñu ngay sóoraale avenir xale yee ñëw bu ëllëgee loolu lañ amee différence ak ñoom moo tax fondation bi muy juddoo tim inspiration boobu la yor moo tax fi ñu toll nii ni ni Amérique structuré woon daanaka noonu lañ tërali fondation bi mooy daayira ci nekk yëpp kenn ku dañ laa boole bàyyi ak sa liberté comme ni état amee liberté ci Amérique am ay luwaay boppam yoo xam Amérique da koo jox am loo xam ne fédéral moo ko fédéré noonu la fondation bi di doxee ak daayira yi nga xam ne ñoo bokkal li fi wu lépp nag mu ngi tënku ci 43 daayira yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci biir fondation bi te jëwriñ ji séq ko jëwriñ yooyu nag ñooy wàcc ci terrain bi di wax ak mbokki taalibe yi ba li nga xamante ni bii tey jii taxawal nañ ko fii mbokki taalibe yi tudd ko fi jëwriñ yooyu ñoo liggéey liggéey boobee kon buñ taxawee ak yéen war nañ leen a sant gërëm leen xamal ne daal incha allahu taala Forum Touray daañ fas yéene jokkoo ak yéen di waxtaan ak yéen ngir gën a tasaare ak gën a yaatal liggéey bi Sëriñ Tuubaa di wax salaamaaleykum wa rahmatullah